bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi almustafa muhammad wa ala ahli baytihi alladina jacalahum allahu qudwatan wa uswatan wa damanan listimraari risalatihi rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk auditeur u rajo Mousdahir FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi jube ci complexe imam ali alayhi salaam zac mbaaw Dakar waaye di jube itam ci 93.8 ci Kolda ak li ko wër ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di ziar tey ndokkeel dellu si ci sunu ëtt bi nga xam ne jamono ji yëpp xew-xew bu mag bi ci la ñu nekk ak yéen mooy xew-xew fàttaliku juddu ku màgg kooku wala ki nga xam ne ku màgg ci moom nga màgg muy sam-sam yu muhammadin sallallahu alayhi wa ali nga xam ne ba naree dara te lu mu bind ak leeram fenc ak kéemaanam fenc dafa bind sam-sam yu muhammadin sallallahu alayhi wa ali muy dynamo wala boog muy central bi nga xam lépp foofu lay jolle yi tuddee atajalliyaat émanation yi manifestation yi yépp ci moom la jaaree moom sang boobu muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci suñu dajee yi wees jotoon nañu am lu ñu waxoon ci ñi nga xam ni xëy na seenam xel fattu na ba nga xam ni xéwal gu mag googu sunu borom subhanahu wa taala jox ni muy sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali gisi wuñ noonu wala boobu boobu dimension ëpp ba ñu jàpp ne rekk ak nit ku yem ak ñin yemuñu sax ci loolu mais dañ caa boole nag li ko wër muy jur yaag ña ko yarak ñépp ñu jéem a seet luñ leen taqalee tilimal leen ba nekk ñu wax ci ñoom doon nañ ci wax lu bare bare loo xam ne alquran moom daa weddi loolu nga xam ne moom la ñooñu doon wax ci li waroon yonent bi muy wéy bu góor bu jigéen di aminatu ak abdallah ak amina ak ñi ko yar di maamam abdul mutalib di bàyyi taxam abu taalib ak di taam taam aminatu fatimatu bintu asad da nga xam ne léeg-léeg ñun sunum xel tënku danay yegg fu sore sore sore boo xam ne boole ñaan ak góorgóorlu rek moo ci ciy génne xam benn waaye dafa dama wax ne bi ma limee ñu bare bare ñoo xam ne ñépp wax nañ ca Abdallah wax ci Amina di way juri sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ak Abu Talib ak lépp ñu wax ca wax yu rafet yoo xam ne wax yonent ba la ñu nett yi wane ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu wane ni ñun ñëpp nga ajjana ma ne menn muslim moo xam ne ñaari téeméeri ak ñeent wala juróom ca la door a juddu gannaaw gàddaay ga maanaam yonent bi jógee na fi téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom wala juróom-benn mu door a juddu waxuma la ak nag xam dara moom kenn rek mu bind ne yonent bi woy juróom ya wax ci lu ñaaw ñi bàyyi waxi ñépp daal di jàpp waxi muslim ja benn waay bu ma ne yow dangaa mel ni dangay saboté muslim wala danga koy tuutal ma ne xoolal bi ñu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nekku ci rafet nga ko waaye muslim moomu nga xam ne xam ne boo ko jàngatee jaar-jaar yi yëpp da xam ne daraja jamu am dara joxu ko lu du dëppoog nguuri jamonoom jamonoy abbasiye yi biñ ko laalee mu mel ni addunaa bëgg tukki waaye yonent bi nag lu la neex nga wax ko loolu problème la waaye noonu lañ ko defee itam bàyyiwuñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa wax nañ ci lu bare bare ci moom wax ci lu xam ni wax nañ ko fi ba tey kuñ ko waxoon sa bàyyi doo yendal ku ñu ko waxoon sa sëriñ ka ko wax la lay fanaani ñi sañ koo wax ki nga xam ni képp kuy niitu ku nekk ca juumam ba ca leeram nga ca nga branché bu mën a leerlu du sax dérange wala yàqu jikko yàqu du yàqu xol xol bu yàqu la xol bu feebar la xol feebar la ku fi waxoon tey wax nañ ko fi ba tey marabu nangam romb naa ko buntu grand théâtre ba ca teg sax nag mu ànd ak soxna su ndaw sa de seetaan nim po ku ko fi waxoon tey doo fanaan ñun benn garantie amuñ ko waaye sang muhammadin sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom la yàlla garantil ba ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim moom bi ko waxee du la déranger loolu feebaru xol la loolu nag fokk ñu xeex ko nag kenn ku nekk danga am sañ-sañ ci xeex xeex bu rëy boobu nga xam ne moo nekk ci kenn ku nekk ci ñun ba ñu jox yonent bi gëdd gi nga xam ne sax kenn mënu cee yegg waaye góorgóorlu ba yëg ne ku ci am gëdd ku ci am daraja ku ci am martaba ku ci am lu mu mën a doon yaa ngi ko jëlee ci martaba ak darajaay sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ndax mooy ndabul yàlla li nga xam ni li yàlla namal bindee fa mi ci moom la ko sotti ma tax loolu itam lu jar a baqal la yonent boobu muhammadin sallallahu alayhi wa ali wax nañ ne personnalité boo ko doon xool du jar sori suñu borom subhanahu wa misaal na ko ci wàllu wu nekk boo xool rek ne foofu war nañ ko fa xoolee ba xam ko suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali suñu borom ko ko waroon na waroon na waroon nañu doy ndax seede bi yàlla moo ëpp seede yëpp qul ayu cheyin akbaru shahadatan qulillah qulillah moo tax boo ko xoolaatee moom sam sangi muhammadin sallallahu alayhi wa ci force théorique mooy ki nga xam ne plan wu yàlla ci moom la ko def mooy plan wu yàlla moom sax moom mooy plan ba wa allamahu ilma ma kaana wa ma yakun ila yawm alqiyamati comme ni ko imam zeynul abidin salaamullahi waxee moo tax ci wallu xam-xam mooy ndab li nga xam ne kuy tànk ci foofu ngay tànkee xam-xam ndax yàlla namm ci xam-xam nit xam ko ci moom la ko def bon ku am xam-xam ku nekk ci xam-xamam booba ci nga xelli pour mën a amas tuut wa maa utitum min al ilmi illa qalila moo loolu doy na rek ñu xam ne kooku xam-xamam bi mu xam tax na ba nga ne lépp loo xam ne jékkut du ko mën a def dëgg la mu xam ca loola wax nañ ko yonente bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bu ne waa ju dara jotu ko du yéeg ci quatrième étage wala mu fekk camion buy daw wala safara suñu taal mu dugg ci biir ndax lam yaakaar ne moo ko cay dal xam googu mu xam as tuut ci la nga xam ne moo ko ci mën a fekk moo tax du ko def te pourtant la mu xam ci loolu sax xëy na conséquences yi la koy war a jural lu bare bare réer na ko moo xam ci wàllu moom ci boppam moo xam ci njaboot gam fay bàyyeeg njaboot njaboot ya ba baam adduna di tukki lañuy wax seen gannaaw ak impact ba muy am maanaam jeexital ya muy am ci seenu jikko ak seen xel ak seen relation humaine waaye la koy fekk suñu borom subhanahu wa taala loolu yëpp xamu ko waaye tere nag tax lam ci xamas tuut du ko def moo tax sangit muhammadin sallallahu alayhi wa ali mi nga xam ne lu ndaw ak lu rëy yëpp xam na ko lu ndaw ak lu rëy maa farat naa fil kitaabi min shay'in téere bi bàyyi wuñ ci dara wa kulla shay'in fassalnaahu tafsila te moom kat mooy alquranu naatiq zikran rasulan la suñu borom subhanahu wa taala wax ba dañu ci alquran léeg-léeg alquran da ko tuddee zikr léeg-léeg mu tuddee yonent bi zikr bon mooy alquranu naatiq te alquran laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi moo tax na mu la mu xam tere na du def lenn loo xam ne jomb na lu xel nanguwut walla loo xam ne diine ji da koy bañ kon loolu lu jarama xel la bu ko defee bon ci wàllu xam-xam mooy li yàlla namal jaam yi boo ko doon misaal tey nga ne serveur nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala ci la def mboolem xam-xam yi ku ko soxla foofu nga connecté pour jot ko serveur boobu mooy sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali loolu ci wàllu xam-xam wàllu xam-xam kon yemu ci kenn tolloowu ca kenn d'ailleurs sax moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali léeg-léeg ñi weerante ummi ñii leela mooy xamu doon dara yàlla xamal ko ñenn ñi ne la déedéet màkka muy ummul xuraa bon ummi mooy ku dëkk màkka wax bare na ci ay ummi yi yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali li ko wuutaleeg ummi yi keneen mooy illettré lañ koy faral di firi waaye du loolu mooy moom dafa judduwaaleel lépp lu mu war a am lépp lu mbindeef di soxla ba muy juddu da koo indiwaale nun nag kenn ku nekk da nga judduwaale mën a am ci loola nga xam ne moom lañuy ñuy def ca moom muy xam-xam ba muy ngëneel ga muy xàmmee ga muy ràññe ga muy barke ba muy teraanga ja moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo tax moom mu la juddoo ñun dañuy juddi mën a uti moom nag dafa judduwaale indi li ñi di uti boo ko xoolee ci wàllu jikko moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali doy na ci rek nga wax ne sunu borom moo ko wax ne ko jikko yu mag yi yépp fa ñu yem foofa nga tàmbalee yow wa innaka la ala xuluqin azim ndax loolu itam lu jar a la moo tax ku màggale ci xam-xamam waaye ku mag màggale ci jikkoom ndax lépp loo xam ne dafa jaadu woon lépp lu yella jikkoom dañuy wuti jikko ju wuti te moom fa ñu jëm ñin foofa la tàmbale dara léeg-léeg bur bi waxoon na ko léeg-léeg ñiy màggal nit walla ñi da ko teral mi ba nopp miin ko ba nga xam ne bu ñu waxee ca moom dara nga ne adduna tukki na nga ne adduna tukki na ku kooku benn garanti amu ko waaye ki ñu garantil moom mu yonent bi moom bu ñu waxee ci moom dara du déranger kenn am benn waaye bu ñuy wax Urwata xaakimu saqiif ibnu Mas'ud nee na benn bis dafa mas ñëw ànd benn délégation mu ne mu dal di gis bi ni mel dara jeja personnalité ba charisme mu dal di mu dal di mu dellee ne buur bu nekk dem naa fa buur dem naa fa waru Kisra buuru Qaysar buuru Najaashi waaye ku mel nii mësuma koy gis moo tax lañ ko nga la nga xam ne moom la nemmeeku ca moom muy jikko ju rafet ak jëflante bu rafet bi nga xam ni moom la gis muy ko jëflante ak ñi nga xam ne mooy ay saabaam moo tax ci wàllu jikko loolu itam yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali yam lewu ci ak kenn sax loolu nag moo waroon a nekk nun suñu xooluwaay bi nga xam ni moom mu ñu waroon a gën a yitteel jikko fexe ba nekk fi nekkin woo xam ne sa borom du la jéppi sa morom du la jéppi wala jikko ju rafet moo koy indi loolu na ci lu wax na ko ci suñu borom wax na ko ci lu nekk nag fi ne yeneen nattukaay lañu am moom yeneen bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali amoon nañ ko wër ñu xam ne lu mu yëkkati ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne gom lu nangul nañ ko ko waaye lam ko jàngale woon rek imam ali alayhi salaam mooy wàccal ba tolloog nit ñi pour mën leen a xëcc jëmale leen fi nga jëm daan na toog di defar dàllam ci biir nit ñi wala muy gar yéreem wala mu toog nit fëgg bunt bi mu dem ubbil ko te fekk ni ñanga daan ratt gàttam daan na sax ñi nga xam ne ñooy liggéey ca ga pour ne pas dire ay jaamam ay jàmbog wala mbindaan moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali da daan seeti ñi nga xam ne ñooy ñi feebar ak fu ñu mën nekk ci dëkk bi ak lu mu sore sore même ñi nga xam ne ay noon lañ sax léeg-léeg am ci ñu xam ne dañ ko daan lor rawatina ci màkkatul mukarram bu leen gëju gis ñi ñëw di ko lor da di seet di laaj mbaadu dara moo tax idfa billati hiya ahsanu sayyi ay sayyi'a wala da ko doon dund mooy alxuraan la woon juy dox danga koy def lu lu lu bon mu fayee la lu baax wala rek koo xam ne da lay lor lu gëj koo gis laajte mbaa du dara ñu la daan tëdd nga dem seeti ko moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali wax nañ ne mësul lekk lu dul li nga xam ne moom la njaboot ga di lekk maanaam di jël plat boppam bu xam ni moo gën a bakkani ba noppi jël li nga xam ne moo gën a suufe loolu di ko jax njaboot ba mukk ya lekk plat ya lekk moom la ñëpp di lekk bu daan sol itam daawul nangoo sol lu xamante ne ku ko gis ne ci kenn kenn mënu koy am te loolu yëpp mënoon na koy def moom sang boobu muhammadin sallallahu alayhi wa ali pour wan na jikko yu rafet yi nga xam ne moom moo moom la jikkowoon ku ko mas a ñëwal aajo soxla ko ngir aajo bu la tax a jóg bu dee ci moom la nekk dana ko faj bu dee feneen lañ koy wutee dana ànd ak yow toppatoo ba soxla ba faj wala taxaw ci aajo nit ñi am taxaw ci aaju nit ñi wa amma saa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis di janni mukk waa ji xam ne day am aaju soxlaam ñëw di ko ko diis mukk bu ko amee bu nekkee ci moom mu def ko bu nekkee ci keneen mu wuti ko bu ca amee pexe itam wax la ko nga dem ci pexe ma moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ku masa texeel moo lay njëkk nuyu même xale bu ndaw xeebul kenn xeebul kenn kenn ku nekk rek da ko jàppee ni jaamu yàlla la ni moom ak darajaam ju rëy ji ak martaba ba yëpp xeebul kenn loolu itam lu jara ba xel la léegi ñun ku ci xaw a am sax yenn martaba ya moo xam xaalis la moo xam as xam-xam la moo xam ak pal la jàpp nga ne ñëpp ñoo war a daw ñëw ci yow nuyu la ay yow moom ngay jàpp ne tey fi nii moom am nga martabaam dañ lay fekk si wala doo fekk loolu nag du jàngaleem yonent bi du itam jëfam da daan nekk itam ko xam ne dafa nekkoon ci service yu ñëpp moo gën a wóor nekk ci service nit ñi imaamuna Jaafar ibnu Muhammad as-Saadiq salaamullahi alayhi day wax ni boo ko doon tënk day wax ni kuy doon koo gis ne du moom waaja dana la romb te doo ko yëpp moo tax koo gis rek tere la koo gis fonkal moo tax sang bi ku mas a gis rek xale laag mag laag nii la bokk lépp moom moo lay njëkkan wa salaamu alayhi wa ala ahli baytihi tayyibin tahirin moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bu ñëwaan ci mbooloo ak daraja ju rëy bu fekkee ne moom la ñuy xaar am bu dee moom lañuy xaar bu ñëwee fokk mbooloo mel ni gilim fa nit ñi rek foofa lay toog waaye di jéggi nit ñi wala di buuxanteeg nit ñi ñi da dem daaw ko def mukk moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali da daan liggéey ñi nga xam ne nekk ci kër gi moo xam soxna lañu moo xam njaboot lañu dañ daan dimbale ci seen liggéey moo tax daawut forcé kenn ku bëggoon lu ñu tuddee alxurriya mooy la liberté ku nekk dala daan bàyyi ci sa liberté même ci wàllu gëm yàlla sax day ubbil bunti nit ki di ko ñaax pour mu yegg ci jëfandikoo xelam loo xam ne dana ko may mu xam ne suñu borom subhanahu wa moom rek kay yàlla daan poussé pour nga xalaatal sa bopp te bu ko neexoon man pourtant man am na leneen lu ma mën a defee waaye dafa bëggoon nit ñi am liberté moom Ali alayhi salaam da koy wax naan kañ ngeen bëgg a jaam loolu nekk def nit ñi ay jaam te yàlla judd def ñu judd ñoom ñëpp nekk ay gor daan ñaax nañu ci ñu liggéey jël initiative moom sang bi Muhammadin sallallahu alayhi jël initiative di liggéey waaw ni man nga ko li ñëpp man man nga ko da daan ñaax nit ñi man أحيا أرضا ميتة فهي له ay jàpp ne rek mënoo ko jàpp ne fa nga dëkk nga xam ni boo demee tey ci ay réew rawatina ci yenn réew tubaab yi seen suuf sa kaw gaaf suuf sa dara nekkatu fa dara baaxatu fa ñoom ñuy góorgóorlu ba jéem fay def dara yow nga jàpp ne fii nga xam ni suuf su bees càq nga yore du ñu góorgóorlu ci dimension yëpp ah pour def fa dara waaye ne rek ñun ñëpp dañuy daal di fàq dugg ci géej gi gën wàll ga dee gën wàll ga dem ñi da leen torturer gëmuñ ne mën nañ dara wala war nañoo mën a def dara mooy suñu problème ba tax sang bi da daan ñaax nit ñi pour ñi jëfandikoo suuf si man ahya ardan mayita fa huwa lahu salawatullahi wa salaamu alayhi wa ala ahli baytihi tayyibin tahirin moo tax dafa bëggoon nit ki am liberté am liggéey am lu mu amal boppam am dara lu man di daan ñaax nit ñi waaw ak doylu nag ak doylu al ghina wal qanaa dafa am solo moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali dafa bokkoon itam ci liñ ko xamal ku xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko defar ba mu jekk mu ne leen yónnent bi liyee wa maa yen maa yen wa maa yantiqu anil hawa lu mu wax maa ko waxloo in huwa illaa wahyun yuuhaa du wax ci loo xam ne ci bànneexu bakkanam la donc kooku am na garantie ku xam ne am na wa ma ataakumu rasulu fa xuzuhu lu mu leen wax def leen lu mu leen digal def leen lu mu leen tere bàyyi leen kooku am na garantie moo tax ñuy wax naan da doon juum ak da doon def nangam ma ne gannaaw bu koy wax leen ne yàlla day juum kay yàlla kum mu xool ba ne loolu lu mu leen wax def leen lu mu leen wax def yaa bon moom moo juum ba tànn koo xam ne mën na def lii tey lu baax ak lu bon bu garantie kenn du ko am koo xam ne mën ngay def lu bon koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ne jullit bu góor wala bu jigéen du nekk mukk koo xam ne bu yàlla waxee ak yeneen dëm ba am na lenn luñ cay wax wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim bu ñu waxee daal waaw wax nañu gongo ñun rek topp amatul dara ma ne kooku boobu garant moo tax léeg-léeg comme ni koy faral di waxee toujours suñu ëtt bi bu ñu waxee ne saaba nangam dina Omar ibnul Xataab ñu tuddee muwafaqaatu Omar ñu am na saa su ma sa saa su ma sa wax ndax amul benn bu nettali boo xam ne nee na ñu weeranti nag yonent bi yonent bi yàlla ñëw ànd ak yonent bi yëpp moom lay àndal. mais gannaaw yàlla daay juum yónni Mouhamed bàyyi fa Omar kana ah loolu lay niru di waaye loolu aw xaste la ju du doo fekk mukk ab julit bu góor wala bu jigéen boo xam ne ida xada allahu rasulu amran an yakuna lawmul yow saa su waxee rek nga ne ko non du noonu nële nële ba alxuraan ñëw ngeen nee ñëw mu ànd ak moom mais loolu xaste ndax amuloon droit yàlla wax yonent bi wax nga rek def lale dañ na nekk dañ ko koo sosal ay budut loolu musiba dikk na moo tax yonent bi da daan diisoog nit ñi di laaj parce que non seulement day jàngale mais dafa bëgg nit ñi di jëfandikoo seen xel lu mu mën a nekk lu nekk nit ki dafa war a am di jëfandikoo xelam ba tax leen daan mbir day ñëw bu ndaw mbir mu ndaw mbir mu mag domaine wàllu kër wàllu lu mën a doon da daan diisoog nit ñi pour non seulement jàngal leen ñuy diisoo waaye jàngal leen itam jëfandikoo seen xel yi di xalaat say xel yi moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi te pourtant mënoon na ko cee fekk mënoon na ko cee ñàkk a fekk ku daan dimbalanteeg nit ñi la ku daan dimbalanteeg nit ñi la di ci ñaaxaate li ñu tuddee frontière yi nga xam ne yàgg nañ ko fee wax ci suñu ëtt bi ñoo ko fi defal suñu bopp yàlla mi nga xam ne moo jin def mu nekk shuuban wa qabaa'ila waaye lu tax li taxarafu pour ñu xamante kenn ku nekk xam sa soxlaay moroom taxaw ja ñun la ñu def ko ay barrage rek kooku ma laaj li ma ci gën a naqari mooy bërki bi moo njaay waaw réew yi ñu fi xool nii di wax yépp benn bu ci am téeméeri ak amu ci bërki bi njaay lañ ko fi créé waaw boo gisee waa ji dëkk Gambie nga gis ko mu mel ni ñu jël ab barrière teg ko ci kanamam ñu ne kële Gambie la dëkk kële Bissau kële eh, Mali la dëkk kële nangam ak nangam lii ilaa asmaa'un sammaytumuuhaa antum wa aabaa'ukum waaye maa anzala llaahu bihaa min sultaan yooyu yëpp yooyu yëpp nga xam ne yonent bi Muhammadin sallallahu xeex na ko waaye ñun ñu nekk ci rek moom daanako lu ñu dar rek ñoo ko teg suñu bopp moo tax dimbalante da ko doon bëgg mbokk yi. bare na lu nekk ci dëkk yi coow lu bare aw amul lii dëkk bi jëfe na nangam ak nangam dara def ko lu dul amirul muminin ali ibn abi wa salaamu alayhi waxoon nee na day romb ci benn poubelle gis gaa yaa nga fa sotti ay ñam mu ne bàkkaaru ñi am ñoo fi indi xiif bi lan mooy ndeyu jël ay milliards dugal ko ci ay banque wala nga dugal ko ci loo xam ne kenn mënu cee liggéey wala juróomi nit ñoo cee liggéey te nga mënoon a liggéeyal junni nit teg ko fa inna alladina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim mooy suñu problème mooy yàlla jox nañu lépp lu ñu aju lu xam ne soxla nañ ko indi na ko fi lépp na lépp indi nañ ko kenn ku nekk fa nga dëkk lu la dundal lu la na màndal loo war loo sol ak foo dëkk am na fa waaye buñ ko jëlee nag détourné ko yóbbu ko ci feneen foo xam ne waruñu ko fa yóbbu dañu yàlla terewoon li koy laa yëkkuuna duulatan baynal agniyaa ñi def ko accaparé ñi accaparé loo xam ne du leen jëriñ mukk waaw million rek boo ko fi amoon tey feebar benn virus boo xam ne boo ko multiplier boo ko ngandeelu junne yoon doo ko gis virus boobu rek bu ñëwee tey yàq sa adduna yëpp ma doo ko jëfandikoo doo jëfandikoo yóbbu ko fa nga ko war a yóbbu jaamu yàlla yi jot ci jot ci ndax kenn koo xam ne li nga yore yaa ko moom amu fi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii suñu borom def ne li ngeen amee ci koom ay délégataire de pouvoir la yàlla di leen ko dénk tey rek boo ëllëgee démb yore leen ko ëllëg bu leen ko yore bon def ko fi ñu ko war a def ba tax dimbalante googu sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ko waaw dimbalante nag lu waa ji soxla téeméeri dërëm mille francs deux mille francs nga jox ko baax na waaye li gën mooy nga fexe ba mu génn ci situation boobu imaamuna Jafar ibn Muhammad as-Sadiq salaamullahi alayhi benn bis mas nañ ko laaj ne ko ndax azakam ni mën na koy jox kenn nit mu ne waaw waaw jox ko ko ndax dootu ko aajowoo ko ndax moom muy joxe ji azaka ay ñun nag dimbale nit yu ndaw ndawaan yi mu réglé ci benn problème bu ndaw a ndaw tey bu ëllëgee mu gën a ndóol moo nu gënal moo ñu gënal te defee loolu itam nekk loo xam ne lu jar a ba xel la moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa kenn mën da jeexal ay ngëneelam ku bëggoon ay nit yu yu lu ñuy tuddee tumaranke wala ñu barewul cib gox da a bëgg bu dee gox bi ña fa ëpp ay séeréer ci waxin day bëgg bu ca benn pël duggee wala joolaa ñu fonk ko fonk gu romb ga nga xam ne moom la ñu fonk seen mbokki bopp pour bu mu yëg mukk ak wéet wala ak tumaranke ci seen bi loolu sang bi da ko muhammadin sallallahu alayhi wa ali beddi konte ci biir xeet di konte ci biir xeet koy xeex moo dañoo war a nekk ay mbokk wa kunu ixwaanam ñii nekk ay jullit ñii nekkuñu ko ñoo nekkut na ngeen leen wan jikko ju rafet ba nga xamante ni danañu ko yëgee ba xamem islam moo tax mu daan wax naan man aza zamiyan faqad aza nii ñi ñu bokkalul diine ku leen def dara jàppal ne man nga ko def benn ba mu naan man inna man aza zamiyan kuntu xasmoo yowmal xiyaamati ñi nga xam ne bokkul ñoom diinam ak ñoom ku leen def lu naxari yowmal xiyaam maay taxaw layool leen pour wan la rek waaw pour wan la rek sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ni mu fonkee woon nit waaw ni mu bañee woon xeebaate ni ñu bañee woon boddiwaan xeet ni ñu bañee woon doxoñi aw xeet wala aw nit wala ak nit loo xam ne day mel ni da nga koy xeeb wala ngay ko tuutal musu koy bëgg mukk moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ak bëggoon fonkoon jigéen ñi lu ko waral parce que jigéen sunu borom subhanahu wa taala da koo bind bind góor kenn ku nekk ci de mottali sa morom waaye doomu aadama bi xool ci physique ci jëmmi do nit ci comme moom ku man sa morom dóor la mu jàpp ne moo man ëpp bu dee kattan moo ko ëpp jigéen mu far ko def mu dee am marchandise wan na seex baqee bi bare yoo xam ne jigéen bu borom kër ga faatoo dañ ko doon naale ñoom alal kii lañ ko def waaye yonente bi muhammadin sallallahu wa ali comme ni ko alquran waxee al muminuuna wal muminat baadum awliyaau baad mu ne góor ñi na yëg ne moom genn wàllu li ci nit ki jigéen ji yëg ne genn wàllu li ci nit ki ñu yëg ne dañu war a booloo ci ngor ci tiranga ci jàppalante ci mottaliwante pour nit ci mat ay kenn ku nekk bu jàppee ne man la comme ku sol benn pattu dàll rek la moo tax mu daan wax naan jibril musu musula dañ di ma dénk jigéen fonk leen ko topp leen ko toppatoo leen ko yërëm leen ko aar leen ko yiir leen ko moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ku bëggoon xam-xam la ak sàkku ci xam-xam xam-xam ko war a sàkku xam-xam du ma ma ne léegi wax ko ci sunu ëtt bi léegi nga gis waa ju xam ni li mooy mokkal waxuma la rek waaye ay journaux aki i ma ni ñu koy waxee ci TikTok ak yu kenn xamul lu nekk mën na ko fay liir xëy de liir suba ba ngoon waaye fatiha bu réglé mënu koy mënu ko te pourtant bu ci defoon benn effort bu ci góorgóorlu woon benn semaine rek mu mokkal ko mokkal ay saar yoo xam ne dana ko mën a jàng normalement nañ koo defee ci làkku arab nga jàng ko waaye bisimillahi rahmaani rahim alhamdulillahi xam nga loolu yëfi dara yëfi dara yëpp nag tayal la rek waaw yonent bi da daan ñaax nit ki jàng tey jàng nag i jàng jàng jëfe woon na waaye tey yomb na kenn ku nekk mën na jàng sa biir néeg sax mën nga ci jàng xam diina ji lum waaye lépp lu la dul jox jox koom bu adduna tey faalewu la ko walla doo ko jox yitte ak léegi nga dégg waaye ñuy wax yàllaa ko wax te li wax dara xamu ko te pourtant mënoon na xam la ca baax la ca wér la ca wérut bu ko defee loolu yëpp lim lay tegtal rek jikko jooju nga xam ne moom la ñu bàyyil muy jukko ju rafet jëflante ba suñu digganteeg suñu borom rafet ci topp ay ndigalam bàyyi ay tereem xam ne njëriñ rek moo nekk ci topp ga lor rek moo nekk ci tere ga bu fekkonte ne ndax dañu nangu jikkoo jikko jooju bare na ay jafe-jafe yu ñuy am ci adduna duñ ko am àllaaxira nag xalaatuñ ko ndax kat alquran moom li ñuy wax leer na yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra incha allah personnalité bu mag boobu di sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci fan yi nga xam ne ñu ngi nekk ci fani fàttalekum danañu ci dellu si waat ak ci sëtam boobu nga xam ne mooy imaamuna Jafar ibnu Muhammad as-Sadiq salawatullahi wasalaamuhu alayhi balaa boobu fii ci rajo Moussaïr FM 93 point 2 di kaddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe imam Ali alayhi salaam Zac Mbao Dakar ak ci Zahra FM 93 point 8 ci Kolda ak li ko wër ci technique bi soxna Khadijatu Diouf Lamine Balde ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa aqulu daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.